wax naa ne initial initial stage bi oo nañ ñu informe nañ ñu won nañu ne lii moo xew waaye li ma méttitlu mooy ne ñu ooñu ñu toog as a team ñu waxtaan lii nii ak nii lañ koo defee nii ak nii kenn ku nekk ku si am sa xalaat nga jox nga joxe ko bu boobaa da ngaa gis ne collectif li duñ bileem meeyo bi duñ bileem kansula si leeralal naa la fii council bi ñaari am lay doxee benn am bi mooy politi political side bi mooy ñun ak mayor bi waaw boobu leer na waaw beneen bi mooy administrative side bi mun naa wax ma ne xëj na euh, mayor bi ak administration bi ñu ngi def seen liggéey involve ñu ñun involve ñu in a sense dañu waroon a oo ñu toog waxtaan ak ñoom ñu xam in and out si understand nga ba mun a digest wax ne ah voucher yi de nangam a nangam lu nekk sa gox yaa ñu gën a xam sa niti gox léegi diw sangam naka la xam nga ko nangam understand nga liñ gis ne dafa rong te mu xëj na involve na ma involve na suma doom ak suma jabar ma try ma seet naka laa ko cancellé ba moom mu óor ma ne household si yeneen si yëpp dinañ am waaye eh, dinañ sant yàlla rek si xëj na audio yi ñoo dégga mooy ne moom mayores wax na ne dina solve Banjul yëpp eh, waaye nag Euh, priorité la pour ñu ñëpp ñu gis ne lii ñëpp am nañ ko in time understand nga comme ni nag dina ko def boobu tamit ñu xaar seet la naay nekk di resource waaw wax naa la waaw mane ne ku dee ak sa bàmmeel léegi laa la firndeel na kenn ku nekk ak sa boppa yàlla ñu ñëpp la fi nekkal waxal digga te yàlla tax doo dee fekki fa digga da yàlla di xisaab sa digga la laa xisaabee pour distribution bi pour waxante dëgg rek council through deputy mayor kool nañu waaye total involvement lañ ñu ooyut pour ñu bokk li tax ma ne total mooy ne du nekkee wax nañ ne léegi euh, dañ am strategy point yi nga xam ne foofu la ñuy yóbbu maalo bi la see fii euh, Saint Augustine at Pagim Abdaye nekkee place yi lañ yóbbu maalo bi eh, nguur gi ñoo tànn pour ñu yóbbu ko ci ñetti place yi nii léegi du nekkee yóbbu nañ ko fa député mais yow kool ñu nañu ne ñu ngi ko yóbbu si place yi ni waaye voucher yi jéena na man laaj ko moom député mais dama na ko vaw yi naka la comme ni suñ gox la li gënoon rafet mooy ñu jox ko meyo bi meyo bi ñëw jox ko kansula si councillors yi ñun bañun tax force bu gaay bu a fom any tax force buñ bugg a fom as far yaa ngi ci dëgga nangul ak acceptable dat tax force because loolu daf la dimbale pour ëllëg sa record la pour ëllëg waaye li ma doon wax mooy du nekkoon ñi tey liñ fee toog ñii yëpp nit di jaabante ñii di wax ne am na ñii amuñ xam nga du nekkoon dañ ñu jox ñun lesee suñ gox ne ñu léegi buñ buñ seetee buñ xaymaa yow sa gox war naa am nangam si maalo ak sukur ak diwlin keneen ki goxam war naa am nangam ci maalo sukkur ak diwlin léegi nag dañ bëggoon yéen vouchers yi ngeen dem ànda CSO yi e, task force bi nga xam ne moom lañ teg di e, NDMA police ak ñun mun munti doon understand nga ngeen ñëw ànda ngeen seet naka ngeen a tasaare lii du boobaa da ngaa gis ne dafa yomba ak ñun yomba askan bi askan bi dinañ mun a jot seen lii si mu gaaw te du boobaa tamit fol tuñ cee gis yëpp comme ni misaal bi ma jëloon suma boppa mooy ne Eh, pa Cissé am jabaram am darakaam am doomam am du boobaa da ngaa gis ne dinaa kansel because du ma nangu man as councilor mënu maa dimbale suma nit ma gis ne benn famille ñu ngi ci kër gi amuñ man maa jël di ko jox suma doom ak suma jabar ak suma raka so dafa rong so lii mooy li nga xam ne eh, moo ici pour ne ñàkkuñ ñàkk ñàkkuñ ci wax ma bokkuñ ci waaye bokka nañ ci une seen su nekkee information buñ ñoo déglu rek la wax nañu ko wax nañu ne maalo yaa ngee ñëw wax nañu ne tey dinañ start wax ñu ne tamit ah voté yaa nga euh, fële ku la wax na wax rek la la mun a waxal waaye du nekkoon daf la oo ne la kaay nañ bokk ñu waxtaan ñu ni neen lan lañ foog ne loolu lañ war a mun a def lan lañ foog ne tamit nii lañ koo defee du boobaa yow liy sa xalaat bu ndaw nga wax ko déglu koo gars yi ëllëgee da ngaa gis ne dina la dimbale dina leen dimbale ñoom understand nga wax naa la fi bu yàggut ma na la di meyo bi féeli du féeli council yëpp a féel council yëpp a in a man dama gëm ne ñun ñoo war a liggéey collectif li tey moom mu ngi mu yoon dafa am leeta bi nga xam ne moo ñu ko binda te leeta boobu noonu moo tax ku mel ni man because man tey xam naa ne du nekkee council bi ñu ngi ñu ngi foofu noonu bari na li ñoo yaakaar ne xëy na dina bokka si ñu ko liit waaw because du nekkee expérience la dinañ wax ne ah, lum bon bon am na ko si council bi because bi mooy tuut taamam eh, foog naa ne du la bindee nag ne la ajoon nañ all meetings because of covid 19 amuloo right through council la ma bàyyi leen waaye du nekkoon xam nga ñu ni neen because tey li ñoo def nii ñun ñun we are nine in number plus eh, four nominated councillors yi foog naa ne doo ko boolee mu nekk tatin duñ nekkee ñun ñëpp toog nañ dégg nguur gi def ne ten waaye kansula si munoon na ñoo ñëw ñu toog di share ideas together ñi rongaaroo bi bari na si kansul bi yaa ngi ko wax léegi bugguma see dugal du suma domaine waaye waaye ñi rongaaroo bi yëpp lu ko isi rek ñaaka toog waxtaan ñaaka bugante kenn ku nekk énewuloo sa morom jàmm foog nga ne yow kenn rek a war a achieve mais yow bi du defee mu ne moom si turam la koo def kansula bi toog fële def mu ne moom si turam la koo def Eh, Banjul duñ gisati li ñoo gis kii fara yow rek dafaa ne ah suma kansulo bi mu ngee def because gis naa lu mu def kële fara meew bi ne a ah, meew bi gis naa lu moo def de jéene na ay paan kansulo bi ne jéene na paan kenn ku nekk di dawale sa boppa waaye duñ toogoon ñu ni neen waxtaan ni lii yëpp du fa xëcc ni ñu ñëpp ni danga da gis ne du der bi di rafet rek der yi ñëpp ay rafet waaye tey dinañ am ñuñ bileem ñii ne meeyo bi ñii ne kansulo doo ko buggee jooj doo xam kan la waaw waaye yal nañu yàlla jàppale relevant information laa laa jox bi nga xam ne moom laa jëlee si meyo parce que bi bi nga xam ne um, moom la covid bi starté uh, meyo dafa taxaw ooñu ne um, dafa am advice from the minister of health ne this is not politics so di best mooy mu use CSO yi pour wane ne um, is different with politique bala ko nit yi di politicalize jël ne ñun léegi gis naa si nangam mu ne nañ fexe ñu gis ne lii is totally out of politique because feebar bi dëgg la comme dëgg la nag nañ use individual yoo xam ne ñii kenn du leen gis ne ñoom politiciens lañ te foog naa ne li ñoo def lifin nañ man euh, dëgga dëgga pour wax la dëgga xale yi demale leen a comment because dëgga am na lu ñu def nit ki du defee dara comment ko si lim def ñun di only blame that we have mooy ne meyo bi ak limoo moo engage xale yëpp nañu oo di ñu jox suñ gëdda ñun suñ gëdda innocence ne war naa defa for exemple naa jël benn bi rek spray spraying of market schools ak yeneen ci understand nga xam nañ ne li nécessité la pour ñu spray place yooyu noonu jaaka yeeg jumaa yeeg yooyu noonu waaye nañu oo wañu ne ah mun naa am ngeen gis ñii man nag yàlla daf ma nattu benn affaire eh, nekkuma Facebook nekkuma WhatsApp te stade naa gis naa ne am na ñoo xam ne sa ñu ngi maa bileem si loolu ne waaw euh, jamono bi walla si euh, di jigal wol buñ toll nii euh, du kansuloo toogee di wax ne nekkuma si nangam dafa alifin waaye nit ku nekk li nga dunda li ma dunda si yooyu noonu li see yaaxa moo ëpp lu see defaru jox naa la suma kees léegi ne la téye voucher di nal nit ñu dem annonce si seen Ah, whatsapp group sini, ne Councilor Ceesay mu ngee joxe voucher fan la jëlee voucher Yo sahel du ñawé da nga né du mbaadu ko jox sa kenen du xelam ñawé mbaadu moom dafa am luñ ko terale terale yëguma si dara xawma ci dara waaw so li moy li nga xamné mo fa nekk rafetlu naa xale yi seen liggéey bu baaxa baaxa baaxa baaxa. ñaawlu na ko si sine du nekkoon meeyoo bi mbolam lim santa dinañu oo ñu toog waxtaan moom won mu won ñu ne xale yi tey ñu ngey def nangam si suñ digal ñun as politiciens si understand nga loolu dinañ ko rafetlu lool understand nga waaye nag mooy li ma doon wax rek ma delluwaat baat bi si lefin bi mooy let's put us let's put our apps together to achieve our goal waaw foog naa ne if we want to be a correct Banjulians understand nga we want we need to work together understand nga pour achieve ñun lañ bëgg a waaw ah li waral seen voucher yi lañ jotul rek ah, am nañ amut yëpp voucher lañ jotul rek te ku jotul voucher am nga raaj nag pour kaas ñu bëri ñëw nañ ci man de te wax la dëgga ki ñëw dama laa direct council Banjul City council ne la demal demal seen ndax eh, di nga jot sa voucher doo jotul man la ma la dee waxaat mooy kool ma wala nga ñëwaat si man ne ma jotuloo ma noot ko pour éléguer du pare. bindaat kantul ne leen diw sangam ak diw sangam ak diw sangam waaye dafa am ñoo xam ne feewuñ ak man witin man suma area sax ñi nga xam ne ñu ngi fi am na ñoo xam ne ñëw nañ ñu ne jotuñ ñu toogaat ba guddi ñu kool leen ñu dem jëli voucher ñoo jël seen maalo sukur romba ma fàtte ma waxuñ ma dara ëllëgee duma demee di kaas ne Pa du Jaañ amut ndey ami amut kumba amut ñu jis loolu noonu ne ma xay Pa Dudu jox nañ ko di ma ne déedéet kay ñu pour na ina fane pasison gordu boobaa dañoo wax ne Pa Cissé kon fooguloo ne dafa am ñum doon utalaat pour mun leen a jox pour mun a am ci loolu dara xam nga te fekka yàlla xam na ne ñoom tamit awuñ ak man doo ñëwee wax ma lee sa complaint na amuloo ma yónni la kansul nga dem kansul doo demee kansul nga dem amuloo ñu koolaat la si guddi na la kaay jël demal nga jël doo jëlee del waatal si passé ne ah li ma waxoon day kool nañ mujjee nañ maa kool sax jël naa ko ma erré sa tour fi ma ko bindoon because dama need pour report understand nga waaw man dama gom ne ñi ma ñi ma fi teg ñooñu laay sa ñooñu laay saaf saabu ma kansul sax man ñooñu laa war a saaf man seen satisfaction loolu laa moom laay ut utuma lii lii satisfy kansul wax naa la léegi ma ne la the essence of what development committee mooy ma jëlee fii si ñoom yóbbul kansul kansul jëlee si kansul isil leen ko ñoom suma ministre dañ ko war di ñoom ñu xam lana lana lana lan lu nekkee lii lu correctut ñoom ñoo ma mun a advice ne ma ABC ñun suñ problème yëpp mooy ne comité sii lañ dooleelut te lañ nit pour dooleel comité sii ni projet ñu nga am fii projet waaye naka lañ ko implémenté doo demee ba binda ko mu óor la ne binda nga ko doo ko yóbbu council doo oytu ñu implémental ko seen bopp wan leen ne grant ñu wan la ne bi ñoom ñoo ko moom ñu ne neen la nañ dimbalante xale yi dañ nit pour liggéey xale yi dañ nit pour nekk si dara waaye naka la ñoo liggéeyee ci kaw du nekkee créétuloo dara pour ñu liggéey xam naa ne dugaat naa si beneen bunt mooy ne ñu ne voucher yi président office la jóge ñoom ñoo prépare seen voucher te fooguma ne président office xam nañ kuy kii at kële at kële loolu wax dëgg yàlla duñ ne dañ ko politicalize man mënuma sa wàllu sori de wax dëgg yàlla ko leerul ma lila leru nanga wako urut wax masih goh dara tege yàlla kena kuneka nekk gox dinka demal nga setat liñ la dénka du nekkee nga ko dinga ko xam doo ko demal si la dénkoon ñi nga ne ñu ene la yow te foog munna am nyom nyep amut ken ku def mistake si kaw du nekkee man ni ma opérété ñoom noonu la ñoo opérété parce que man duma toog mu óor ma ne am na lu ñëw pour suma gox man ma toog ne dama leen koo xañ man individuel bi man kenn rek ma toog ne dama leen koo xañ du ma ko def waaye gëm naa ne tamit ñoom kenn ku nekk dina toog ak sa ward development committee pour waxtaan ak ñoom wan leen ne ABCD moo ñëw soo nii lañ buggoon pour defee ko looleen lanaay advice am na ñoo xam ne xam nga advice dafa dépend mun nga advice nit ki wrong li nga advice nit ki xëj na mu nekk si li nga xam ne si yoon la tegu um, man dëgg la ñi nga xam ne ñooy ma ward development committee biñ ñëwee dama leen tegal scénario ne leen bokkuma woon si pour atesal nit sax waaye dama toog gis ne eh, Kébé mënut a jóge këram ñëw ne ma am paasise dañ bind suma tur waaye Modou Kébé laa tudda waaye ñoom ñu ngi bind Modou Lamine Kébé léegi astafurlah wala Modou Kébé laa tudda man Modou Lamine moo nekk suma ID card bi waaye bu ma demee gars yi mënuñoo understand loolu noonu te yow rek a ma mun a lifin man xam naa ne kii number nine Mantel la jógee xam naa ne Modou Lamine tama Modou Kébé la tudda xëy na ID card bi moo moom nañ def Modou Lamine Kébé mune ma legi yow rek ma muna dimbele pour ma muna am ci maalo bi ma mo lamin sayna luma la demal ci kansul ba la ko joxon ñu dem nga dim nga réglé ko fofu nonu ñoo ñu demal mune man fofu sa duma fa dem because nanga nangam mu ne xaaral ma delluwaat fii ñi ne ko sa kansulo bi day du nekk di yéen ko fa tek mune len leen waaw ñu ne ko wa des na ci yéen nak comme yéen ko fa tek mu ngeen am soxla mu bañ du ñu ñaan dina leen ñaan ci dina ñaan sé carte yeen tam ngeen xam loolu na def very true dëgg bu set wecc ma wa leen waaw kon do démé na nonu man dama dimbalé because li tay gox gi la waroon bala Development Committee bi da ngeen warona ñaatu li da ngeen warona am lu bari ñëw teg ko di ko niti gox yi way amu len ko du na nguur gi ñëwee di len dimbalé hay dama dimbalé dé because family bu fi dé tay wallahi billahi yalla dina ma laaj koku naka la dé du nekkee xiif a ko rey because responsibility bi dafa tegu suma koo boppa bi am naa ko aw ko suma koo boppa bi la tegu kon ñooñu du ma toogee gis li nga xam ne dina yomal seen dund dama leen war a dimbale kon loolu moo tax ma dimbale leen te defuma ko éloon de because man suma décision rek mooy woon ne du attesal kenn because council dañu waroon a oo ñu dem ñu toog ñu waxtaan ak ñoom wane voucher yi ni ñu koo jéenee xëy na lu rong ñu jëm koo rectifier ak yooyu noonu yëpp waaye comme demeewul noonu ma ne man jël naa suma décision waaye bu ma toogee waddi parlement comité bi moo waxtaan a ñëw few of them ne leen ah lii day laa lii laa amoon as xalaat ñoom ñu ne ma waaye yow nit dina ñëw kebe dina ñëw jógee ba këram ñëw ne la dimbale ma te yow xam nga kebe nu mu sonee woon si yow wala eh, ay nitam nu ñu woon si yow nga bañ koo dimbale ëllëgee foo nga ne doo jubloo si kebe dina la dimbale du la dimbale non ma dimbale waaye toolu wuñ sax du mbiri politique lii pour feebar bi moo tax mu ñëw comme feebar baa tax mu ñëw nag ñëpp xam nañ ne lockdown bi am na ñu bëri ñum disturb seen famille yi fu ñu doon jëlee mënatuñ faa amee ñeenay seen business yaa ngi taxaw understand nga ku mel ni man ni ma doon gën a dimbalee gox gi mooy tent yu maa rent léegi amatuma tent bu maa rent naka laay dimbalee te nit na kenn ku nekk mooy li ma doon wax rek kenn ku nekk sa kóota la Banjul ñu ñëpp a ko bokka du nit amee wax bu ñaaw jëmee ko sa kow amal wax bu rafet jëmee ko si kawam rek kos ñun tey dañoo ñaawlu li nga xam ne moom la ñu gaay def dañoo ñaawlu li nga xam ne moom lañu ñu gaay def xëy na dañoo wax rek ñàkk a waxtaan bi waaye ñu ñaawlu wuñ seen liggéey ñoom te bu gaay di pare ifin seen sóobee bi nga xam ne moom lañ def man dama ne nañ ñu isil kayit yi ñu tok ñu waxtaan ak ñom ñu sét lan lañ fogné mo mooy réalistique ëllëgee duñ vérifier dinañ xamné ne dëgg kansulo bi day nangam wala tay du nekkoon yaa ngi lifin nga coono bi yépp li yépp coono la teg ko benn place depuis kañ ba légui depuis ñaari fan ñetti fan amna ño xamné sax li lañ pour dundé ko because buñ ko gissé rek fogné nañ sen bamba dina marché waye ñu ñëw tok xëy euh naka ñu tok xëy na benn fan ñaari fan ñu ne stop nañ nañ xaar bi after julli aaral ba ñu ñëwaat dinañ si la ñoo jekkali understand nga te ba jekkali bi ba léegi ñeneen yaa ngi dem council waaye pour ñu jël seen voucher yi pour ñu jot ko problème la understand nga loolu yëpp ñàkk a ñoo involve rek dañuy involve ni ko njeena because man xam naa suma gox bu baax Ablaye kër gu nekk suma gox fii kër gu nekk laa wax waxuma la ne naa borom kër gi de ñëpp de waaye kër woo dugga mun naa laa ne diw kenn ñoom diw sàngam loolu xam rombatut ko sama dee toog man su ma daata dama dee toog suma kër billaahi walaay talaay ak or bu ma or ni dama koo toog binda ko man teel damaa ne kenn ñoom taataa ma xam ñaata household la fa nekk ma ne kenn ñoom fay eh, Mr Faye ma binda kenn ku nekk ki ma fa xam rek kooku laay binda du yàggee mun naa laa ñaata kër moo nekk mantel mun naa laa wax ñana ko amee ak si kan si loxo kan la nekk loolu yëpp mun naa la ko wax mun naa laa wax ñaata household moo nekk si kër gi te dugguma fa sa te fekk maa ngi toog benn place waaye yaaga faa dugg moo tax ma xam ko waaw ku toog si eh, jal bi 2013 léegi duñ la bëggee laaj sa gox ba léegi xamuloo ko jaratuñ nga toog fa sëriñ bi billaay buy fa toogati non waaye déedéet nangooguma ko lu tax mooy ba léegi li ma buggal gox gi amal gu ma ko waaw eh, nañ dimbalante eh, ñun tey problème ñu ñoo dal nii yëpp ñaaka toog a waxtaan ak doomi gox gi la rek cos eh, mun naa jël sample si kebe bi nga xam ne yàlla daf ñu boole xalaati rafet la dee am léegi-léegi dañoo ñëw ñu toog ñu waxtaan won ñu ne lii duñ ko defoon lii duñ ko defoon mu ne ñu mu ne ma waxtaana nañ la waaye fu mu nekk nii waaw ñun ñoo war a toog seet lan nay doxal gox gi politique jeex na fu mu nekk nii waaye léegi liy dimbale gox gi ñun ñëpp a si war a involve ma ne ko a ah des na si yéen ñu ñëpp duñ ci involve initiative yu baax lañ am yow loolu. balaa lockdown bi bu korona bi starté rek si la gars yi ñëw ne nañ delluwaat suñ kër yi duñ ñu soxlee ñu ooñu kon du nekké amna luy transpire si council bi pour wax la diga xawma ci dara suma responsibilities la nak, pour lijanti ndax dañ na a fay ndax fayuñ len loolu suma responsibilities la why foog na ne li ma njëkkoon a wax keroog bu ut togu bi dama len ne kena ku nekk mboolem li nga def kansul ak lim fi munti def kansul duñ am ben kayit bi ñoo sané record bi nga bëgg am yep dode me kansul eh, di nga ko jot understand nga nda dañ leena fay si xaalisi nguur gi la wax ma xaalisi kansul bi la nda dañ leena fay si sen poste yaga yaga dina leer dina leer in a sense du nekké tok nañ be ñuy ñëw suñ finance department bi ñom fokk ñu leeral ñu wax ñu ne ABCD def nañ ko time corona bi nangama nangama nangam lañ dépense te loolu yëpp dépense boobu noonu benn bu nekk si kaw luñ ko dépense loolu dinañ ñu ko wax waaw so loolu moom eh, ndax fay nañ leen xaw ma si dara feyuñ leen xaw ma si dara waaye gëm naa ne nag tamit ne mboolem kuy coono war nañoo am stipend biñ la war a jox coono. kuy coono coonal Gambia coonal Banjul war nañu ekati dara jola abla waru ñoo tok gis seetaan xalé yi ni nda dañu wara nda ñoon ñol ñu dañu ñu ngi encourage xalé yi pour ñu liggéey ëllëg dañu wara encourage xalé yi pour ñu liggéey man bala ñu dafa am luma ma day metti sax eh, wat baat bi bugguma ko woon way dina ko wax eh, am na ñuy jógee si biti di wax ne xalé yaa jël sen place pour man moom man rek dëgga dëgga man teewuma ko e big deal euh, loo loo loo jël jël jël jël suma palaas foog naa li ma yàlla dénk mënuloo ko jël euh, man du nekkee mistake am na ba léegi naa ko delloowaat meeyoo bi at kansula si wax naa la ne du pour sa réer si néeg nañ ko ut si néeg du ma jéenee si biti wax léegi li réer dinañ wax ne Pa Cissé bokk ñu ko gën a réeral eh, bugga na ñoo jël suñ place bugg ñoo jël suñ place wax bu yaaxu la li li nga moom ak liñ la dénka du benn de sëriñ bi eh, dañ ñu dénka ñun dañ ñu dénka ñu ñu dénka mooy niti gox bi nit niti gox bi moo ñu dénka soo léegi dénka bu ñu dénka dañ gëm ne nañ leen dimbale si lii ak lii ak lii ak lii ma ne la the essence of Ward Development Committee bi mooy ne ma jëlee council isil leen ngeen toog waxtaanee ko yéen neen ba ñu jëlee foofu noonu delloowaat ko council wan leen ne ah ñun de lii ak lii ak lii kontaan la si ñun du boobaa da ngaa gis ne ëllëg dafa lifin waaye xale yi bu ñu def seen liggéey liggéey bi war a rafet understand ñu toog ñu ne xale yi dañ bëgg a jël siñ place nangam nangam bu waxuñu dara nangam understand nga euh, ñun du nekkee sa xale yi dañ bëgg a jël suñ place xale yi doomi Banjul lañ nañ oo nañ nañ leen oo ñu waxtaan ak ñoom understand nga duñ waxtaan ak ñoom foog naa ne réeróo du nekkee réeróo moo nekk suñ digante réeróo bi dina xala dina dinañ xala giifal wala dinañ xala lifin man nag euh, waa baat bi dama ko dégg rek si ay nit wallaahi déggaguma ko si benn kansulo si benn kansulo déggaguma ko si ñoom waaw loolu nañ bàyyi wax bu yaaxu la xale yi am nañ raay pour liggéey doomi Banjul lañ liñ bëgg a def dañ ko war a def eh, ñun nuñ fi juddoo yaroo fi ba amee fi dara noon lañ fi juddoo ñoom yaroo fi te war fee am dara ku liggéeyul tey nag ëllëg sa ëllëg du feeñ tey danga ngaa gis nit kine a isa Issa dega-dega mungi dëgg mu ngi si nangam elege fok naa kuko yobu ko si ko hi passé muna am dinañu dinañu fa defal dara niti yi am ñu buggee ko si li nga xam lool lay def so li moy li nga xam mo fa nekk nañ tara ñu liggéey ngir yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam suma kaddu moy ma nge balu ñep aha eh, di sakunyu ñu balal ma aha te di len ñaanal euh, korite bi ñu jéena ni yàlla euh, juli nañ ko si anam bu ñu neexut mooy ne kenn ku nekk xëy na julee nga ko sa kër waaye yal na doon loo xam ne fii laa em euh, yal nañu yàlla jàppale ba mboolem luñ luñ luñ luñ luñ éem ñu mun koo achiv yàlla mun na ko sañ na ko yal nañu ko yàlla defal Eh, maa ngi gërëm ñi nga xam ne tamit si seen tur lay waxe eh, muy Newtown Westward nga xam ne xëj na ehm, ma baalu leen aha rek si ñàkk maa gis si li nga xam ne mooy maalo bi ak sukur bi ak diwlin bi ngir ne xeej na ehm, joxuñ ma si cër bu bari cër nag duñ la si joxul lu bari da maandu pour ëllëg fu wax ne nga ne ah. man de fii lañ ma emale woon fuñ ma emale nag foofu laa emoon waaye maa ngi sàkku si ñëpp nañ dimbalante comme doomi Banjul lañ ñu jël différence bi nga xam ne moo nekk suñ diggante ñu ni neen ñu jël ko ñu tegee ko boor duñ ko tegee boor Banjul lim actif léegi foog naa ne dañ ci war a capitaliser ba ñu ñëpp ñu juboo nekk benn Banjul dafa tuuti torop te ñu ni neen dañ xamante kenn ku nekk xëy na duma ma munut a du ma doon wax tey Ablaye du doon wax lu bon si yow sax mun naa am xëy na am na loo xam ne yaa ngi ko xam si man lu gën a xeesoo loolu noonu waaye du nekkee dama la téye comme suma boppa foog naa ne du am benn baat bu ñaaw bu ma jublu si yow eh, ñu ni neen la comme Banjul nañ fexe ñu liggéey pour jëm kanami Banjul nañ fexe ñu liggéey li nga xam ne mooy dimbale Banjul euh, dinaa comment xëj na mboolem ki nga xam ne tamit jàppana si li nga xam ne mooy jëm kanami Banjul Banjul ku ku si jàpp rek foog naa ne ñun la ñun la ñun ñun ñun la dimbale si jàpp bi because en bi for exemple tey fi ñu toog nii fii da si yëpp responsibility council la waaye tey nguur gi seetut ndax fii de route la ndax du fii de route lim gis rek mooy eh, dafa bugg a taaru mu ngi liggéey Banjul pour Banjul taaru kon eh, maa ngi comment ñëpp ñëpp laa wax du ma tudd a tur waaye ñëpp mboolem ku jàpp pour Banjul ba ba ñëw ba ëllëgee duñ ñëw ku jógee komb di ñëw ne he Banjul de dama faragal a dugg because poto poto waaw eh, nawet nawet bi moom am naa yaakaar bu wér ne moto yi dara lu leen a teree daw. xanaa ñaan yàlla kay flotte yi nga xam ne moom lañ doon am primate ak yooyu noonu ak xëñ na ndox bi ñàkk a mun a teel a demam yooyu rek mooy suma ragal asat naaw te yooyu du nekkoon xaadim reski woon nañu si loolu rek du boobaa da ngaa gis ne lu tëdd man musuma musuma nawet du nekkee xaaji guddi la sax mu ngi taw du ma tëdd lu tax mooy dama foog ma jéem a ma seet fan la leebul bi toll. sëñ bi dénkaane dafa métti de du ma doon wax ne rek taw bi taw bi rek ah, lifin rek lañ ma dénka ngelaw sa ngelaw bi sa dañ la ko dénka ngelaw du naawaloon fii xida dañoo xee eh, paasise te amu fu ma tëdda nangam a nangam loo tax bokk na si initiative bi xam nga luñ palaan soo kon ñun ñu ne ñaala rek ne ñaan yàlla rek ñu actif ñun suñ góol waaw soo lii mooy li nga xam ne moo fa nekk maa ngi gërëm ñëpp di gërëm borom télé bi eh, di gërëm yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw ah di leen wax jëf ñi ko déglu tamit ñu baalal ma aha because um, xëj naa mun naa am wax naa li nga xam ne eh, si ma fiilin man ni ma foog ne noonu laa ko waxee xëj na tontu bi keneen gisee na ko neneen waaye ñu baalal ma aha because eh, li nekk si man laa doon wax lu ñaaw nañ ma ko delloowaat rek ñu xam ne man la lu rafet nag nañ ko jël ñu ñëpp ñu bokk ko te xam ne yàlla moo moo ko rafetal waaw maa ngi baalu aha asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh